dëgg la Cheikh Ibrahima dañu kii di ñëw kenn xamul buntam ci Serigne Touba moo tax dañoo fàddi sàkkeen yi dëgg la oh. keroog bi waxtu wi jotee waxtu wi ñu yegg ñu yëglu maam Thierno ñu ne day surnaal di dallu uh-huh. kër gi ne ñëpp tëdd nelaw ndax borom kër gi nekk moo tax tey daaru uh-huh. ñoo ñëw seen kër daaru ñëw seen kër ndax Serigne Touba mooy boori borom ñaari Ibrahima yi wallaay dëgg la maa ngi am mbégte bu baax jërëjëf Serigne Moustapha Gueye Serigne Moustapha Gueye la

wallahi kon ñu def ko ndax tey jii mboole njabootu Cheikh Ibra kenn ku ci nekk xolom na sedd goo xam ni mënu ko wax kenn te ña ko doore ci sa jëwriñ jee di sa waajur di sëriñ Amdi Fall mu sëriñ Wulu Fall benn ba egsi fii ci kër sëriñ Basiru Fall alxuraan mooy sëriñ Wulu Fall mii leen teeru nga xam ne bi ñu ko waxee ni ko njaboot gi daa mel mu ne kon téema a dem jàpp ba ñëw ba delluwaat a ci ngir gépp na ñu ngi nii sëriñ Cheikh Fall ngi fi Baye Djili Fall ngi fi soxna maam Fadi Fall nga soxna Khady Fall mu Serigne Cheikh Fall Baye góor soxna Mbène Fall soxna Jabb mu Serigne Cheikh Khady mboolem njaboot gi ñoom ñëpp ñu ngi fi jubluwuñ ci dara. danoo bëgg rek ñoo xam ni la nekkoon ci diggante maam Thierno ak seexi Ibra Fall ba tey jii day yokk waaye dara du ci wàññeeku digg diggante mësu koo gën a rafet diggante mësu koo gën a ritax ba tey jii nag ñuy def bis boo xam ni journée culturelle la ñu wax ni dañ koy sédd borom daaru borom daaru muxti naaj na lool fi ne xañ na yëf yi na yëf yi rëy gum rëy ci ñun ba xamuñu nun koy téye moo war a sax mu dem waxtu wi waaye wax dëgg yàlla ban duggee ci koor gi ba nëgë saa yu nu tegee dabi seera faal yi muy jëm kër borom Touba dañ ci jàllale waale bis bii ngir xam ni maam Cerno lañ ko tudde léegi nag teraanga jaa ngi nii sëñ Modou Kara jottali ko njabootu borom daaru gépp dégg na li sëñ daam soo da wax dani ku sa yaakaar ne ci borom daaru baa ngay soppe borom daaru demal ma kër Cheikh Rafal tey loolu na fi la mën a yem ak ñun waaye sëñ Amdi Fall dani ku yaakaar Cheikh Ibra baa ngay soppe Cheikh Rafal génneel teerul ma njabootu borom daaru muxtu gi moo waral njaboot gépp teew nii ñu tàmbali lii bëgg koo bëgg leen koo jébbal ngeen tëj ci seen bët ndax xam ne bu ñëwul ci dab yi di di ko gis waaye na ñëw mbake ba gis ko nii rek ñu ngi jéggalu coono yi waaye dëgg yàlla daal seet na sunum xel dal na suñu yaakaar dolliku na bu baax a baax soxna yaa ngi nii ñoom it njabootu Serapha rek la di ay rek di ay doom di ay jarbaan ah yéen yéen a jiitu ñu topp ci bàyyi ji li ba noppi sëñ Modou Kara di ma laaj ñoom fu bokk ma ne ko yéen yéen a jiitu yéen la seex la njëkk a jur ñun suñu seeni rakk ñuy seeni doom wala ñuy seeni taalibi yéen yéen a jiitu jërëjëf si la sëñ Ba Jili mm. sëñ Modou Kara si la mooy jottali kaddu borom daaru nee mi ngi nuyu sëñ Mounda Fall kon mi nga xam ne moo fi nekk. nee ci turu nag seen kilifa gi Cheikh Abdoul Aziz ak i taalibe yi àndal. diggante Cheikh Ibra Fall ak maam Thierno. boo koy wax da ngay boo koy wax da ngay wax diggante seex Ibra ak sëriñ Touba. Cheikh Ibra moom. mel ne waxuma la ku mel ni mam Thierno ci Serigne Touba. waaye lappatoo bu sant Mbacke sax. waaye lappatoo bu sant Mbacke. ko Cheikh Ibrahima sa gis jox ko ab cër. sakkaa jëmm joo xam ni. Serigne Touba def ni maay moom. Serigne mooy man. waaw. nee buntu bi nag wàllu boppam mu présenté sëñ bi. Cheikh Abdou Aziz nee sëñ Ngunda la lay njëkk a présenté sëriñ Ngunda Fall waaw mi ngi waaw waaw nee na Cheikh Ibra Faty daaw ma sa woo ab taawam Cheikh Modou Awa Balla Cheikh ni ko Modou mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñiiñ ak foq ay baaraam bokkul ci ak kiriñ moodu mu ne ko mbàkke mu ne ko mbàkke mu ne ko lore kese fayul bor mu ne ko lore kese Cheikh Abdou Aziz sama am nee na fayul ay bor mu ne ko loo ci jublu mu ne ko loo ci jublu mu ne ko moodu ku la bëgg ku la bëgg bëgg ko ba noppi bëgg ko ba noppi soog koo jox aw lor ku la yëg ku ko ba noppi. yëg ko ba noppi. soog koo jox aw lor. ku la teral ku la teral. fay ko teraanga ja. fay ko teraanga koo jox aw lor. waaye fu la waay teg. waaye fu la teg. lu la waay defal. lu waay mën a defal. lu mu rëy rëy. lu mu bu tàllalee loxoom. bu tàllalee loxoom. nga tifli ci aw lor. defe ne fay nga bor defe nga bor bi. maam Thierno nee na bor bi. loolu sëriñ. Thierno borom daal nee loolu sëriñ. ak yaafus la. sëriñ Gunda Faal mii nee na du ngiing de du fort ay baaraam ku am yitte la ku bëgg sëriñ Tuubaa la ku liggéeyal baayam bala ba gërëm ko tey kon bi ñu jógee daaru ñoom ñii fekk si ko fii nee na fii mu toog mën naa waat ci yàlla moom fa sëriñ Tuubaa xolam sedd na. xolam sedd na guy Cheikh Abdou Cissé. na Thierno. xolam sedd na. xolam sedd na. sedd na. xolam sedd na. teraanga. nee na teraanga. la. waaye teraanga ji ëpp solo. moo yitte. moo yëg. yitte ak yitte ak yek moy lepp teranga teraanga mooy li te fekk nan ko fi nak dafa ma sam ben way bo xamne nee daa sam ben way bo xamni ni dafa am soxnam da am soxnam bari alal lol bari alal lol ben bis rek ben bis rek mu def ben invitation mu def ben invitation bokki ndaw sim tak bokki ndaw sim tak ak bokki bopam ak bokki bopam ñu def ay reception ñu def ay reception ba takusan ba takusan mu dajale ñep mu dajale ñep daan ni li ma leen doon doyee nag. daan ni li ma leen doon nag. dama wàcc bëgg a wàcc sama jabar ji. damaa bañoo bëgg a wàcc sama soxna sii. ndax sama jabar ji. ndax sama jabar ji. lim am ci bon bon. am ci bon bon. ëpp na téeméer. ëpp na téeméer. bis nag. bis ni ko nag. fase naa fase naa ko. fu ne waay bay fa sa bopp. fu ne waay bay fa sa bopp. te xale bi def ko rafet nag. te doon ko rafet ni meen faal. waaw. rafet lool rafet lool. waaye waa ji daal seytaane jàpp na ko. waaye waa ji daal jàpp na ko. ba mu invité. ba mu dajale nit ñi. dajale nit ñi. toroxal ko. toroxal ko ci kanam nit ñi. wàcc ko ndaw si nag. ndaw si nag. dem kër bokkam. dem kër bokkam. def ko bari lijjanti nag. doon ku bari ay lijjanti nag. ba pelante waaja. ba pelante waaja. waa ji ñu dox tuuti. nee na ñu dox tuuti. waa ji bëggaat jabaram. waaye ba waa ji bëggaat jabaram. xamul lu mu ciy jotee. xamul lu mu ciy jotee. pelent bi it. bi it. jaaxal ko lool jaaxal ko lool. xamul lu muy lay. xamul lu muy lay. muy muy xalaat. muy xalaat. ba mujj bu jéggee sam ndox. ba mujj bu jéggee sam ndox. doo ko naan doo ko naan. dajeeg benn jigéen. mu dajeeg benn jigéen nag. bu nekk mag. bu nekk mag. mu laaj ko lu la jot. mu laaj ko mu ni ko dama amoon lu bari. mu ni ko damaa amoon lu bari. te amatuma ko te amatuma ko. amoon sama soxna. amoon sama soxna. wàcc ko wàcc ko. tey laa ko gën a bëgg. ko gën a bëgg. am. justice boo xam ne. am justice boo xam ni. dañ ma cay woo. dañ ma cay woo. te wax dëgg yàlla. te wax dëgg yàlla. bu ñu may laaj téeméeri bon boni ndaw si. bu may laaj téeméeri bon boni si. du ma ko ma ko mën a xam de. lii nag. lii nag. moom laay xalaat. moom laay xalaat. ba jeex ba jeex. soxna su si nekko ko. soxna su mag si ni booy dem rek. booy dem rek. ci audience bi ci audience bi. ñëwal ci man ñëwal ci man ma yab la. bi waajee dem. ba waajee dem. mu ñëw ci soxna si mu ci soxna si. soxna si yab ko. ni ko boo demee. ni ko boo demee. ba audience bi egsi. ba audience bi egsi. ana ku wàcce jabaram. ana ku wàcce jabaram. neel man neel man. loo ko wàcce. loo ko wàcce. neel am na téeméeri bon bon. neel am na téeméeri bon bon. buñ la tàmbalee laaj buñ la tàmbalee laaj. tàmbaleel ci dafa amul yëg. tàmbaleel ci ni da amul ak yëg. Ah, waa ji ñëw. waa ji ñëw. procès bi egsi. procès bi egsi. ku wàcce jabaram. ku wàcce jabaram. mu ne man mu ne man. loo ko wàcce loo wàcce sa soxna. mu ne am na téeméeri bon mu ne am na téeméeri bon bon. ñu ne ko ah ñu ne ko ah nga ko wàññi de. waaw ah, bisimilah mu ne ah bisimilah kon. ñu ne ko tàmbalil ñu ne ko tàmbalil. mu ne dafa amul yëg mu ne daa amul yëg. siis bi taxaw siis bi taxaw arrêté. ñu ne ah lu muy def nii. ñu ne ah lu muy def nii. defe ne siis bi daa far. defe ne siis bi daa far. siis bi yónnee benn dof bu ni ci biti. siis bi yónnee benn dof bu mel ni bàyyi ci biti. bu mu daan romb. bu mu daan romb. mu ñëw ci procureur bi. mu ñëw ci procureur bi. waay fi. gaana waay fi. aajartu fi. aajartu saaga siis bi saaga siis bi. lu ne mu wax ko. lu ne mu fa. xas ñëpp xas ñëpp. mu ne delloo leen ko mu ni delloo leen ko. mu ne leen kii lu jóge ci moom. mu ne kii lu jóge ci ñu ne xamuñu ko ñu xamuñu ko. mu ne yëg gi mu ne yëg kon maam Thierno yëg na leen ko defal. buy wax lu ëpp du ko yëg. nee buy wax lu ëpp du ko yëg. buy def lu ëpp du ko yëg buy def lu ko kon ku la gën ëpp yëg. kon ak yëg. moo la gën a nit kon ay nit ngeen kon ay nit lañu. doy na sëkk dugg nañ ci biir añ bi ñëw. waaw Thierno Borom Daaru. Thierno Borom Daaru dugg nañ ci biir añ bi ñëw Thierno Borom Daaru.